والقلم وما يسطرون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 نعمة ربك بمجنون ca kanam ak sama application Wave mën naa ci jaarale sama àddiya mu jëm ci tuubaa ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci menu paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu indil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a yónnee ci Touba ci kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci compte yi ca kanam jërëjëf Serigne sëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziar ñépp sëñ bi di la ziar di bu wér di am toujours mbégte waaw di toog ak yow ndax euh, dangaa bokk ci ñun te it ñu soxla la lool waaw di la ñaanal wér di ñaanal gudd fan waaw nga fekkee lépp. ndax nag sunu nguur gu bees gi moom bëgg nañ nga fekkee njëriñ li ñu ngi la koy ñaanal yàlla yàlla na ko sunu borom mottali euh, di wax rek ni tey euh, biñ buñ fi ñëwaatee nii c'est euh, président de la république moo ñu fi yabal moo ñu fi yabal njëkk na fi yabal sax sunu collègue Cheikh Tidiane Dieye mi nga xam ni moo yore mbiru ndox mi moom toog na fi presque ñaari fan di dama ko ñëw waaye mi ngi ñëw nii sax sama ginnaaw moom ministre de la santé maak ñoo mën a doon ànd waaye dañoo xaw tas ndax ku ñu ngi woon ci yeneen kii ay mbir ñu ne ñoom ñu ngi sama ginnaaw ñu ngi boori euh, Jurbel xam naa léegi ñu yegg si waaye dañu ne woon nañu ñëw rek wax la euh, ci ndigalu président ak euh, le premier ministre Ousmane Sonko tiis bi ñu am nii ci mbir mi xew nii ak ni mu méttee ci xol ah, ñu yëgaat léegi nii sax ni am na keneen ku ci noppalu wax dëgg yàlla metti na donc li ñu sant mooy ñu ñëw fii Touba wan waa Touba ne ñu ngi ci seen wet ñu ngi ci seen wet ñu ngi toog ak ñoom ci tiis wi bu doon sunu sago sax dañuy ñëw toog ak ñoom fii duñu ñu def ndax euh, toog si wetu nit ci période bu mu am naxar rek mën na wàññi euh, métitam lu baree baree bari waaye dañ ministère yëpp la wax man démb wi la ma woowaat di ma laaj man heure ngeen di dem kon ñoroon na ko lool pour que mu ñu ñëw toog ci seen wet di leen xamal ni rek waaw ñun ñu ngi ci yéen lu ngeen ñu sant lu ngeen xalaat lu ngeen ñu wax dinañ ci dox askan wi yëpp gis ci boppam ndax xam nañ ni askan wi rek moo la ñor waaw xam nañ ni Touba moo la ñor kon lépp lu ñu mën pour taxaw la lépp lu ñu mën pour taxaw askan wi danañ ko def donc am na yu bëri yoo xam ne euh, dajale nañ ko pour indi ko donc euh, pour jàppale askan wi euh, lu mel ni ceeb bi waaw indi nañu cent mu ceeb yoo xam ni moom la ñuy tàmbalee dañ moom la tàmbalee laay wax parce que mun na am leneen toppaat ci dañuy ñaan yàlla ndox mi moom xëy na waaw bañ a bañ ñëwaat tuuti ba ñu génnee li ne ci euh, fépp fu am ndox mais aussi di wax rek ni bu weesoo donc euh, li nga xamante ni mooy euh, ceeb bi indi nañu ay ay ay bassan ay yu mag yi oh. waaw indi nañ ci juróom trois cent mooy ñetti téeméer waaw indi nañ ci ñetti téeméer indi nañu ay paan ak ay satala bu ci nekk ci téem juróomi téeméer bu ci nekk sa sa doom ji moo ko indi ci participation Cheikh Tako ak euh, la CNCSU andi nañu ay pagu ndox lu toll ak ñetti junni butéelu ndox xam nga ndox mi période yi dafay baax ñu xoolaat ko bu baax ku amul sax eau minérale nga nga baxal ba mu teey nga doog a naan ndax euh, bu ndox mi dajaloo fenn taxaw fa waaw germes yenn larves yi mën nañu indi euh, yenn feebar yu sew yi surtout feebaru biir yi ak yu demee noonu donc euh, indi nañu ay t-shirt aussi pour góor ñi lu tolloog ñetti téeméer indi nañu euh, ay carton bu demoon diwlin yi yu juróomi litre indi nañ ci ñaari téeméer waaw indi nañu aussi euh, ay moustiquaire waaw ministre de la santé jox nañu ñetti junniy muski moustiquaire imprégné lu mu metti metti nañu moytu rek yooyu buñ ci muccee yeneen jàngoro du ci du ci du ci topp en même temps aussi di wax rek ni waa armée andi nañu ñaari bus yoo xam ni pour yóbbu nit ñi la dem ak ñëw bi ñaari bus yoo xamante ne ni armee moo ko moo ko mettre à disposition mu nekk lu am solo nag parce que dañ koy soxla par moment donc obligé di ko wuti feneen lu toll mi camion hydrocureur yi mooy yiy man ko ndox mi waaw andi nañ ci fukk yoo xam ni dañu bëgg ndox mi bu ñuy pompe muy muy gaaw a dem fu ñu ko mën a yóbbu rek ñu ñu yóbbu ko fa am na ay moto pompe tam waaw électro euh, pompe yoo xam ne euh, juróom fukk la juróom fukk yi 30 yi yegsi na mu des euh, ñaar fukk am na moto pompe boo xam ne nag puissance am moom waaw dafa gaaw ci minute mën na jël lu bare bare bare bare bare ci ci benn waxtu moom ni mu gaawee sax dafa kii am andi nañ ko pour bassin yi nga xam ne dafa dafa xóot torop ñu ndox mi xaw faa bari ñu ñu mën ko fa yóbbu di wax ni indi nañu ay matelas pour nit ñi tëdd andi nañu junni matelas ak ñaar téeméer waaw loolu tam c'est pour que bu ñu xëy na ñu am fu ñu dem du jafe ndax tante yi maa ngi ciy ñëw mais ci kër yi ñu leen héberger ñu am fu ñu tëdd tam yor ay matelas dina dina dina am solo euh, am nañu 15 tentes loolu armée moo ko indi tente bu nekk euh, téeméeri nit mën nañ cee nekk téeméeri nit mën nañ cee nekk donc foog naa ni loolu moom dina dina baax indi nañu aussi ay lal lal yoo xam ni dañ koy dañ koy lem ak a lem yooyu itam dina leen may ci kii campement yi ñu ñu nekk ci euh, andi nañu aussi lu tolloog juróom fukki million pour teg ko ci ndax besoin yi jënd carburant essence beeg yu ni mel pour moto pompe yeeg bus yeeg yooyu euh, loolu indeegum nañ ko tamit teg euh, camion yi de transport de personnes de l'armée waaw yooyu mooy yi ma wax ak lépp loo xam ni jëm na ci setal ndax fi mu nekk nii sëñ bi li ëpp solo ci li ñuy def mooy moytu ba askan wi ba ñu am feebar ak i jàngoro waaw foog naa ni docteur bi xam na bu baax li may wax situation de précarité boobu boo ci nekkee rek lu ne xaj na ci donc euh, détergent yi lépp luy raxas lépp luy jëndi microbe euh, nee na service d'hygiène sax dina ñëw wër foofu zone yi am loolu yëpp ñu pomper ko euh, seen kii bi saupoudrage bi ñuy def pour que mu bañ a dara des ci ndox mi dara luy wàlle rek bañ a des ci ndox mi loolu daal mooy li nga xamante ni fi mu nekk nii waaw indi woon nañ ko di wax rek ne non moustiquaire yi du ñetti junni juróomi junni la waa juróomi junni la euh, autant pour moi euh, di wax rek nii donc euh, à partir de semaine prochaine bu soobee yàlla dañu bëgg ndax réew bu tolloo ci yenn situation yu jafe ñu faj mu ñëwaat mu faj mu waat ndax maa ngi bëgg bari dañuy déclencher li nga xamante ni mooy mécanisme de riposte maanaam mécanisme boo xam ni état bi yëpp day dajaloo ne lii la ñu fas yéenee nag arrêté ndox mi wala nii la ñu fas yéenee protéger population yi ba ndox mi jeex donc loolu état bu ko déclenché rek xam nga defoon nañ ko fii ci plan kii bi ORSEC bi ci ci mbënd mi amoon euh, ci yenn zone yi donc Ndakaaru bokkoon ci loolu dañ koy defaat nii parce que dañu am direction boo xam ne mi ngi tudd fonds de solidarité ñi nga xam ni vraiment moo ñuy jëm ci tamit di leen jàppale euh, direction général de la protection sociale aussi Matar Sène mu yore ko euh, dinañ ci taxaw bu baax a baax mais fonds bi dafa yor loo xam ni tollu na ci mën a dimbali ñeenti junni ci ay famille famille bu nekk dañ lay transférer xaalis mu toll ci ñaar fukki junni ak juróom-ñaar donc ñoom ñu mën ci jàpp parce que xëy na am na ñoo xam ne dinañ soxla xaalis bi tam soit ñu mën a dem tukki seen benn mbokk ba yëfi jeex wala yu demee noonu ñu ne joxe dund gi baax na waaye tam bu ñu leen joxee tuuti koppar dana am solo ñu mën cee ñu mën ko jëfandikoo. donc loolu euh, banque mondiale moo ñu ko financé woon pour situation yu mel noonu su amee waaw Touba nag mën cee bokk ndax 20 000 familles la ci Sénégal gi yëpp. waaye Touba dañ ko jox ñeenti junni donc euh, vingt mooy fukk mooy ñaar fukki junni léegi seen euh, Touba nag fii euh, ñeenti junni te foog naa ni ñu ngi déglu gouverneur maa ngi waxtaan ak moom léegi famille yi xam naa ni lu mu bëri bëri xëy na du fa du fa yegg waaw donc ñëpp dinañu mën a am dinañ mën profiter ci ci ci plan boobu noonu am na am na solo donc loolu fas yéene nañ ko tàmbali semaine prochaine di wax rek ni gouvernement bi yëpp lañu sant pour ñu ñëw sëñ bi loo soxla waxal ñu ngi ñu ngi taxaw pour ay soldaar lañu daal waaw dañu ñu taxaw pour pour faj aajo boobu ndax ñun waaw ay ta boo weesoo gi ñu doon askan wi moo ñu yitteel ñun tam dañu bëgg dimbali doomu aadama te yàlla moo ko wax lu am ci àdduna doomu aadama moo ma ci gënal noonu mu buggee doomu aadama nag foo doomu aadama sonne nga taxaw ko fayiku yàlla xaj na ci bu xiifee nga jox ko mu lekk fayiku yàlla xaj na ci ak lépp lu ma mën di doon mbaa mu feebar loolu nag tamit bokk na ci li motiver suñu taxawaay diggante nit ak moroomam wala diggante jullit ak moromam ñuy ña sàkku sa ñaan nag bu baax a baax a baax waaw di sàkku di yóbbante nuyoo nag ñoom ñëpp ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax léegi nii rek ñoo nekkoon bàyyi leen fa daw ñëw ñu ngi ñu ngi masaw nag askan wi ñu ngi koy masaw bu baax ndax wax dëgg yàlla man ba ma gisee image yi wax dëgg sama xol naxari na torop waaw ñuy sàkku sa ñaan it ñaan ci bu baax xam nañ ni boo ñaanee yàlla mën naa nangu waaw ñu nga doy ñu ci lool nag waaw ñu ngi lay ñu ngi lay sàkku ñaan bu baax a baax sëñ Mbacke yéene ji am nga yitt am nga poste bu ngeen ko wax da ngeen ko def loolu ma ci am solo dégg nañu kàddu yi bu baax a baax a baax te xam ne yéene ji itam xam ne yéene ji xam ne waa warlu gi ngeen warlu seen responsabilité bi ngeen bi leen yàlla teg xam ni ngeen nangu gi ngeen ko nangu euh, jëme gi ngeen ko jëme ci askan bi rawatina fii ci Tuubaa waaw sunu sunu sunu xel daal na bu baax sunu xel daal na bu baax xam ne lu mën a a ngi sunu ci ci wàll yëpp loolu nag alhamdulilah leen di sant di leen gërëm ñaan bu baax a baax yàlla ñu defe ga dindi bu gàtt ñu ñi ñëpp te yàlla nag eh, barkeel yëngutu yi yëpp koy ñaan bu baax a baax tubaarkàlla su ko seet bu baax nag ci kàddu yi leer na lool te tubaarkàlla leer na lool te tubaarkàlla xam gën nañ ci xam yéene ji bu baax a baax yéene yéene rek am solo yéene yàlla boo yéenee rek boo wajjutu la def sax mu def fay la dencal la waaw kon kon yéene ji yéene ji yéene ji boo jiitu lépp xam nañ ko bu baax nag xam nañ ko bu baax a baax tabarkàlla da ngeen tabarkàlla ni ngi leen sant ak gërëm ngeen jot ñu sant ak gërëm ci kilifa yi bu baax a baax xam ne gis nañ yitte taxawaay bi ak yi bu baax baax loolu rek la moo ci li des moom yàlla moom moo xam li muy def léegi lépp dogalu yàlla la yàlla moom moo xam li muy def moo xam li tax muy def kon nag loolu lépp moom ala kulli xaalim da da ñu mënatiku euh, sant leen ci yéene ji ak yitte ji waaye lépp nañ ko delloo yàlla xam ne yàlla moom lu gën rek lay def hmm, lu gën lay def lu mu def rek na la te mu lépp moo ko faaw nu faaw am na lu mu lu mu ci teg loo xam ne ñu mën cee feeñe suñuy suñu jëf ju baax mën cee feeñe suñu suñu yéene loolu itam loolu mooy ci su wartif hmm. waaye nag fatuwaaraka la xel daal na bu baax a baax xel dal na ci suñu diggante suñu borom ndax xam nañ mooy def waaye xam na suñ xel dal na seen seen suñu diggante ak yéen xam xam na yéene ji bu baax ak ji ak taxawaay ñaan bu baax a ca kanam ak sama application Wave mën naa ci jaarale sama àddiya mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci moni paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu andil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a yónnee ci Touba ca kanam mën naa ko ce jaarale valider ko mu dem ci compte Touba ca kanam jërëjëf Serigne Touba.